wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki jullit yi ak bokki taalibe yi sëriñ Mouhamadul Bachir nee mi ngi yëkkati kàddoom ci ndigalul cheikh Mouhamadul Muntaxa mi fi sëriñ Touba tey ci kaw suuf di ko ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ba mu àggale mbooleem naal yi nga xam ne am na ko ci liggéeyub sëriñ tubaab bi te ñaar yi nga xam ne Serigne Touba nee woon na yàlla sunu borom rek moo ko mën a joxe yàlla na nu ko defal muy ak fekke akuk tal kon mu ne sëriñ Mountakha nee na mi ngi yóbbante ab nuyoo ci am di moom moo Modou Mbenda mi fi jëmmi maam Cheikh Ibrahima Fall tey ci kaw suuf ak mbooleem rakkam yëpp ak taalibeem yëpp ak doomam yëpp ak nag mbooleem bokki taalibey murit yi nga xam ne ndigal li ci ñoom la jëm si nee na ndigal li nag mooy mooy fàttaliwaat rek li ñu nekkoon mooy ndigal li ko santoon muy ndigal lim ko santoon. bam leen ko santee ba nëgëni. te bam leen ko santee ba nëgëni. ñi ngi koy def nag nu kawe njortul sëriñ bi. muy nag loo xam ne du mbetteel ci moom. ndax lu jógee kër sëriñ Touba. jëm kër Cheikh Ibra. jëm kër Cheikh Ibra. noonu képp la war a demee. kon sëriñ bi nee na mi ngi santaat sëriñ Amdi bu baax. di leen ko yóbbante. sëriñ Assane. sëriñ Assane. sëñ Daam. ak maam Cheikh ak bokki taalibe yëpp nee na bàyyiwut kenn ci fi ñi fi teew sëriñ bi nee na mi ngi leen di yóbbante ak cantam ak ngërëmam te xam ne kat noppaluwu leen benn yoon yéen a ngi ci liggéey bii yéen a nga ca daara ja yéen a ngi waajal koor gi kon yéen wàccu leen benn yoon liggéey bii nag tax ñu daje fi tey liggéey tax nag ñu daja fi tey sëriñ Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa wax ne. sëriñ Mouhamadou Mountakha daa wax ne. sunu borom dafa waxoon ci alxuraan ne. sunu borom daa waxoon ci alxuraan ne. amana rasulu. amana rasulu. bima unzila ilayhi min rabbihi. bima unzila ilayhi min rabbihi. wal mu'minuna. kullun amana billahi. kullun amana billahi. wa malaikatihi. wa kutubihi. wa rusulihi. mooy yonent bi ci boppam. mooy yonent yi ci boppam. yonent bi ci boppam. day gëm boppam. day gëm boppam. doog a mën a jariñu ci boppam. doog a mën a jariñu ci boppam. sëriñ sëriñ Sonia bu daan wax ne. sëriñ Sonia bu daan wax ne. boo gisee sëriñ Touba. boo gisee sëriñ Touba. daan jàpp ba ci ba noppi. daan jàpp ba noppi. di ci barkeelu. di barkeelu ca jàpp ma. nee na mooy njabootu sëriñ Touba gi. mooy njabootu sëriñ tubaa gi. kenn ku ne. kenn ku ne. yaa ngi sàkku sëriñ Touba ci sa morom. yaa ngi sàkku sëriñ Touba ci sa morom. loolu la tax sëriñ Touba daan ko def. loolee la tax sëriñ Touba daan ko def. da koo firi woon bis. da woon bis. daa waxoon ne. daa waxoon ne. li ñëpp gis ci li ñëpp gis ba daw jëm ci jëmm ji. ñëpp gis ci sama jëmm ji ba daw jëm si ci. loolu la la ji gis boppam. nee na loolee nag la jëmm ji gis ci boppam. te bëggut ko ko ci ëppale. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. Cheikh Mouhamadul Mountakha wax ne. liggéey bii mu leen santoon. liggéey bii mu santoon Baye Fall moo tax moom itam. moo tax moom itam. Eh, joxe addiya ñëpp joxe addiya ñëpp la war. moo tax oto yii mu jël ko. moo tax mu jënd oto yii. muy ñeenti oto. muy ñeenti oto. def ko addiya sëñ Touba. def ko addiya sëñ Touba. tabbee ko ci biir liggéey. tabbee ko ci biir liggéeyu Cheikh Rafal bi. nee na tuyaaba ji ngeen ci am. nee na tuyaaba ji ngeen am ci liggéey bi. la ci bëgg am moom it. nee na moom it leel ci la bëgg. moo tax mu jënd noo tax mu jënd ñeenti oto. jox leen ko jox leen ko. def ko addiya ci biir liggéey. ngir def ko nag addiyaam ci biir liggéeyu Cheikh Rafal bi. ndax nee na war mooy dëkk bi. ndax nee na war mooy dëkk bi da koo ñor lool. da koo ñor lool. ndax sëñ Tuubaa da koo ñaan. ndax sëñ Tuubaa da koo ñaan. ci matlabul fawsayni. ci matlabul fawsayni. wàccal xarimana. wàccal xarimana. xariman amina. xariman amina. wakun bi xifsihi. wakun bi xifsihi. kafilan damina. kafilan damina. nee na kon wóor na ko ne. nee na kon wóor na ko ne. dara fi dara mënu fi moom mënut am ci dëkk bi lu weesu jàmm. li fi sëñ Tuubaa itam. li fi sëñ Tuubaa bëgg it. sunu borom defal na ko ko ba nag. ndax. da nit lu nekk ci biiram du nit bu nekkee ci biir mbir mën na koo bañ a yëg. waaye Touba de li fi am. waaye Touba de li am. ci jàmm ci jàmm. amul fenn ci àdduna. ko génn xam ne amul fenn ci àdduna. loolee nag. loolee nag. sëriñ bi dénk leen ko. sëriñ bi dénk ko Baye Fall yi. ngeen di ko saytul. ngeen di ko ko saytul. nam ko bëggee. nam ko bëggee. kon nag na eh, sant bu baax a baax. kon na ngeen sant nag bu baax. te xam ne la alxuraan waxoon ne. xam ne la alxuraan waxoon ne. laa yastawil xaaxidoona. laa yastawil minal muminina minal muminina xayra uli darari xayra uli darari wal mujahiduna wal mujahiduna fi sabilillahi fi sabilillahi bi amwali wa anfusihim bi amwali wa anfusihim fadlallahi mujahidina fadlallahi mujahidina bi amwali wa anfusihim bi amwalihim wa anfusihim alal xaahidina alal xaahidina darajatan darajatan wa kullan waxdallaahi usna kon yéen ñi futti ko kon yéen ñi nga xam ne yéen futteeku jaayante jaayante seen guddi ak seen bëccëg ak seen bëccëg jox ko sëñ Tuubaa jox ko sëñ Tuubaa mënu leen yam mukk ña mënu leen a yam nag ak ña toog ca seen i kër kon loolu taw feex rek la sëriñ baa ngi leen di sant te xam ne liggéey bi itam te ne liggéey bi itam liggéey bu tàmbali la liggéey bu tàmbali la te xam ne nag du dakk ba àddunay tukki ba ci suñuy sët. ba ci suñuy sët. nii la war a wëyee. nii rek la war a wëyee. liggéey bu diis ndax liggéey bu diis la. moo tax nag kon. moo tax nag kon. mi ngi digal taalibe Serigne Touba yëpp. mi ngi digal taalibe Serigne Touba yëpp. na ci ñëpp ànd ak ñoom. na ci ñëpp ànd ak ñoom. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. sàmmale leen ko. sàmmale leen ko. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. defar sa jëmmu defar sa jëmm. ba ba kenn bañ laa jubbanti. ba kenn bañ laa jubbanti. ñi nga xam ne nag. ñi nga xam ne nag. defaru nañ ba noppi. defaru nañ ba noppi. ku am kàttanu xalaat. ko am kattanu xalaat. nga jàppale leen nga jàppale leen ci. ku am jëf. ku am kattanu jëf. ci sa alal ci sa alal. nga dimbale leen ci nga dimbale leen joxe sa alal. ndax joxe sa alal. dara ëpp ko tuyaaba ci yoon wi. dara ëpp ko ci yoon wi. te Serigne waxoon na Cheikh Issa Diène na ko. te waxoon na Cheikh Issa Diène na ko. ba amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. ba amoo taalibe bu nanguwut a liggéey. mu ne ko boo ko amee da bëriwut. mu ne ko su ma ko amee da bëriwut. mu ne ko boo ko amee wàcc mu ne ko boo ko amee wàcc ko. ndax taalibe mu ndax taalibe murit. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. bu nanguwut a jox sëriñam addiya. nanguwu koo liggéeyal. nanguwu koo liggéeyal. ab sëriñam mënu koo jëriñ. ab sëriñam mënu koo jëriñ. kon loolu képp mooy li ci am solo. kon sëriñ bi nee mi ngi digal taalibe yëpp. kon sëriñ bi nee na mi ngi digal taalibe yëpp. ko am kattanu mën a jox oto. ko am kattanu mën a jox Baay Faal yi ab oto. na ci joxe ndax na ci joxe ndax du doy. bi daa ndax liggéey bi daa rëy. ku amul kattan mën a joxe oto. ku amul a joxe oto nag. mën a joxe addiya. te mën a joxe addiya. ju sax ju di ko ci def di ko ci def. na ko na ko ànd ak ñoom. na ko ànd ak ñoom. ndax liggéey bi moom. ndax liggéey bi moom. xam ngeen ne doole koy ne doole moo koy def. waaye kattan na koy def. waaye kattan koy def. ndax mbooloo mi mën nañ ñetti téeméer ak ñett. mi kat mat na ñetti téeméer ak fukk ak ñett. kon loolu lim bu diis la. te loolu limu baatin la ci yoon wi. te loolu limu baatin la ci yoon wi. ndax sëriñ Touba. ndax Serigne Touba. ba muy dem ci géej gi. ba muy dem ca géej gi. waa ahlu badri yam àndaloon. waa ahlu mooy lim boobu. ndax Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne. ndax Cheikh Abdoul Ahad waxoon na ne. képp ku fi nekkal Serigne Touba. képp ku fi nekkal Serigne Touba. ña àndoon ak Serigne bi. ña àndoon ak bi. foo nekk ñoo lay sàmm. foo nekk ñoo lay sàmm. képp ku bëgg jëme ci yow lu noona. képp ku bëgg a jëme ci yow lu dul noona. ñooy dox sa diggante ñooña ñooy dox sa digganteeg loole kon nag kon nag ñu ngi ciy soññi ñëpp taalibe yëpp sëñ Abdou Lahad Ka mi itam bi ma ko ko yëgalee. bi ma ko ko yëgalee. jox ko ci ndigal. jox ko ci ndigal. na ko yaw kat yaa jiite maire bi. yaa ci war a jiitu kon. yaa ci war a jiitu kon. sa jëf moo ci war a njëkk a tàbbi. taalibe yëpp ànd koog yow. yëpp ànd koog yow. fasaasa yi la ma wax la ko wax ne ko. kon moom it commune bi sosoo na ci. kon moom it commune bi sosoo na ci. weer wu nekk weer wu nekk. junniy litre. junniy litre yi bu ko defee muy dem ci oto yi. bu ko defee muy dem ci oto yi. kon nag loolu. noonu mu ko defee. noonu mu ko defee. ni la ko ñëpp war a defee. ànd koog ñoom. kon ñi ngi sant bu baax. di bañ a guddal kàddu yi. di ñaan rek. yal na ko eh, Serigne Touba tàbbal. yal na ko Serigne Touba nag tàbbal. ca liggéey ba Cheikh ba liggéeyaloo Serigne Touba. ca liggéey ba Cheikh Ibra Fall liggéeyaloon Serigne Touba. ba Serigne Touba nangul ko ko. ba Serigne ko ko. ba lépp demee nii mu demee. ba lépp demee nii mu demee. liggéey bi yal na tàbbi ci biir liggéey bi yal na tàbbi ci liggéey boobee. lam ca lam ca làqoon ca làqoon ci ay ngërëm it. ngërëm yi yal na tàbbi ci loolu. ngërëm yii yal na tàbbi ci ngërëm yooyee. mu tolloog li alxuraan di rek ne. mu tolloog li alxuraan di wax ne. ña leen jiitu. jiitu. ci ci ngëm. bu ngeen mënta àgg fa ngeen àgg itam. ba ngeen mënta àgg fa ñu àgg itam. bu ngeen góorgóorloo rek. seen pësteef àggale leen foofu. yéen nag yéen nag. am ngeen tawfeex. am ngeen tawfeex. ndax li seen maam fàggul. ndax li leen seen maam fàggul. yéen Baye Fall yi. yéen Baye Fall mooy lu mujj judd mooy lu mujj judd rek. ëpp pësteef ëpp pësteef. loolu loolu moom pàgguteef la. adduna soppiku na. ndax adduna soppiku na. jamono ji na lool. jamono ji yàqu na lool. waaye yéen ku dugg seen biir kër yi. waaye yéen ku dugg ci seen biir kër yi. xam na la fa nekkoon démb. xam na la fa nekkoon démb moo fa nekk ba tey. dara soppikuwul ci yéen dara soppikuwul mu baax sax soxlawu leen ko. mbuum mu baax sax soxlawu leen ko. waxuma ak tabax bu rafet. loolu moom taw feex la ak pàgguteef. waaye du lu doomu aadama mën a defal boppam. jërë ngeen jëf. wasalaamualeykum wa